veut tuer son chien. l'accuse de rage l'accuse de rage. <laughs> euh, Sénégal je crois que cette dictature rampante la amul enseignant amul journaliste amul politicien ñëpp seen kaw lay jëm. non c'est une dictature rampante te amul nag ma sàmba amul ma demba je cite Pape Alé Niang yàgg na leen ko wax yéen journalistes yi nee na leen gis nga bu paree ci politiciens yi nii yéen la jëm képp ku ne noo sa kaw la jëm la preuve Pape Ndiaye anamu. Mhm. jusqu'à présent les gens n'en parlent pas et Serigne Saliou man c'est un collègue de français et c'est un collègue vraiment euh, koo xam ne c'est il a tellement formé des enseignants aujourd'hui j'ai un collègue Abdou Lahad Gueye qui est à Fatick professeur de mathématiques c'est lui qui l'a formé mhm. mais c'est à travers lui que je connais euh, Serigne Saliou qui était à Bambey au lycée de Bambey ça c'est un deuxièmement j'en suis persuadé que tey ñiy wax loolu dañoo liir Serigne Saliou Gueye liirati ko liirati ko liirati ko kenn xamul ñaata at. Mhm. pour vous dire tellement c'est ridicule aujourd'hui on te parle de carte professionnelle man je suis enseignant payé par l'État du Sénégal qui professe dans des classes mais yoruma carte professionnelle te déposé na déposé na te yoruma carte enseignant. vous l'avez déposé. oui déposé na mais yoruma carte professionnelle. pourquoi parce que on te dit une lenteur administrative. comme d'habitude ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est-à-dire que si ce n'est toi c'est donc ton ton frère c'est-à-dire que et et l'agneau su ma la bëggee rey amul sax looy wax cest dire que man xam naa ne yoroo carte professionnelle lu tax yoroo carte professionnelle parce que man maa lay tegal ay lenteur administrative yoo xam ne doo ko mus a am su ma la bëggee jàpp ne yow de yoroo carte moi par exemple j'ai ma carte mais je je je l'ai reçue quatre mois je pense après avoir déposé hein c'est ça le développement du numérique ça ne peut même pas être une semaine il y a combien d'enseignants qui sont dans la brousse et pas de carte professionnelle kenn xamul luñ toll donc bu fekkee loolu la nañ jël journaliste yëpp ne journaliste ñi amul carte professionnelle yëpp dañ leen génne ñu xool xam nga nañ wax wax bi gis nga Serigne Saliou avec son yor-yor bu fekkoon yoor yor heure bu xëyee tegal ndékki i Sall mu ndékki ba suur mu tegal ko ataaya ataaya yor-yor mu naan ba xolam sedd. mu préparel ko añ bu baax ci yor yoor bi. Hmm. su boobaa Serigne Saliou Gueye ne sera même pas inquiété mais parce que Serigne Saliou Gueye dérange Serigne Saliou Gueye fait face et di ce que le peuple sénégalais moo tax ñu ne ko off et c'est pas lui xam nga am na ku fi demoon Kaffrine mu ne nekk sa gannaaw clavier rek di kacc kacci waaye di ngeen xam ne loolu yëpp dina arrêté gis nga buñ jógee ci Serigne Saliou nii képp koo xam ne yaa ngi nekk liveur. wala nga nekk xaw ma ci sa Facebook di bind di wax ne waaw nii wala lee wala contre la dictature rampante la yow da ngay bàyyi wala nga dem ci biir. c'est pourquoi tu as les jeunes la comme le le Lamine Niass. Mm-hmm. Diop Taïf tous la liveurs là ana ñu tey ñu ngi ci biir kaso bi. nit dof mais honorable doguma la mais pourtant liveurs yooyu ngay wax ak ñuy kàcci kàcci en 2011. mais dañu amoon doole te dañu tax nekkoon ci wetu ñi doon wut nguur parce que lorsqu'on disait que la. Euh, la euh, am na expression bu ñu doon utiliser sax di xam la ni la puissance du clic hein, fera face à la toute puissance. la magie la magie, magie du, clic. du clic fera face à la toute puissance. du canon du, du fric et des flics. très bien. mais ci diggante bi changement bi nan la mën a demee ba finalement magie du clic bi bëgg doon cauchemar cauchemar ñenn ñi. xam nga boo bëggee layale loo xam ne du yoon yow sa bopp da ngay jéem a wuti yoon léegi jéem a wuti yoon nag képp ku taxaw. day nekk obstacle ci yow et obstacle bu nekkee sa kanam da nga koy dégager parce que ki nga xam ne moo fi taxawoon en 2011 2012 di xeex ak ñun ba sama xarit mu du jóob nga xam ne aujourd'hui pour ne pas le dire sa fille maa ngi koy nuyu au passage ak sa maman soxna Anta ba mu ñàkk ci bakkanam fi à la place de l'Obélisque kooku tey yoroon mer kooku tey moo bëgg a légaliser une troisième candidature képp koo xam ne nag tu contre cette troisième candidature di expliquer Sénégalais yi muy leer seen bopp ngay taal seen xel yi moom day taxaw ne daw dama lay dégager képp koo xam ne nag yaa ngi ànd ak moom di légaliser comme ni ñu koy waxee ñoom di inventer un plus un égal à un non égal à deux. di wax seen deuxième quinquennat boobu moom dalay jàpp ne yow moom alhamdulilah nekkal sama wet la preuve Ahmed Suzanne Camara c'est un enseignant mais fii la fi saaga rey fii nit lu nekk mu wax ko ab koo xam ne ab kilifa la. nekk troisième aux élections présidentielles yi passé en plus de sept cent mille personnes yoo xam ne dañ koo gëm te Amir Suzanne Camara ba tey jii ni kenn wax ko dara lu ko neex mu wax est-ce que euh, Serigne Saliou Gueye a dit pire que Ahmed Suzanne Camara est-ce que Serigne Saliou Gueye a dit pire que Moustapha est-ce que Serigne Saliou Gueye a dit pire que ki nga xam ne député yi nañ leen yeew ba mu dëgër ñu sànni leen ca géej ga jën yi lekk leen mu jeex est-ce que Serigne Saliou Gueye a dit pire ki nga xam ne moo taxaw mu ne ñun on va même s'il faut passer sur vos sur vos pour aller au palais on va le faire Cheikh Seck à l'Assemblée nationale mais tous ces gens là kenn du leen wax dara yow daal moom ne si tu es contre cette troisième candidature si tu es contre le système de gestion si tu es contre li nga xam ne moom la ñuy doxal ci réew mi te yow àndoo ci yow dañ lay effacer pour mun a continuer maintenant c'est à nous de choisir Et nous, on a bien choisi de faire face. Soit tu fais face, mais tu disparais. Serigne Saliou aussi a bien choisi de faire face. Mmh.